Edouard Camavinga dana bokk ci match bu ngoon bi ginnaaw blessé gi mu amoon waxoon naa leen méttiwul kon noonee la mujjee abal alaba moom it euh, naka noonu classico bi danañ ci indi ay leeral abi bay mu bëgg a dem Ligue 2 mi ngi ci yoon yi Alexandre Balde ak équipe bi la di Barcelone match bi nar a football suba gars yi sant naa leen gërëm leen def leen seen i bala publicité bee jàll bu ko defee ñu dikkaat léegi nag jàll baraj baraj gi may def di leen wutal ay xéewal ci dëkk bi ak i saafara baraj baraj googee maa nga teere ji ci dëkk bu sell ba di Touba Mbàkke fekk fa Serigne Seex borom sungub si nga xam ne daanaka ndomba yam ca boole mucc na ay ayib yow mi nga xam ne yaa ko takk ak foo mën di dugg fu la neex mën nga faa baraj baraju tëmbétlu ci jàmm ak salaam ngay génne ndax xam-xam ba nga xam ne moom la koy defee moom mi di sëñ bi uh, tedd na lool am na ay ngomb yoo xam ne gars yi boo ne ko ratt tëj moo xam uh, jigéen nga wala góor nga kum ci mën a doon uh, boo ko defee li nga koy def yaakaar naa ne la nga bëgg am ci ki nga xam ne relation góor la wala jigéen ndax bëggante yàlla sunu borom moo ko njëkk a bëgg bu fekkentee ni gu leew gi la te yaakaar naa ne loole bu leew gi rek ko tax a jóg nopp ci jigéen ak ci borom këram nopp googu tamit barkeelu na foofee nga xam ne moo nekk Serigne Cheikh fële ca Touba adresse bi nag ngeen gis ko noonu ma nga nekk Touba Daaru Minam bu ngeen ko wooyee lépp taw féex jaaro yi nga xam ne nag boo ko takkee wërsëg yi comme tullu mel ni comme mbàccum gerte comme ni mu demee ci béjjën bi nga xam ne moom it def na ci xam ne daanaka da cee ci liggéey a bi nga xam ne gars yi ay jafe-jafe la ci moom léegi na tukki danga koy dàbbar ñi lu gaaw gaaw euh, carte d'identité nag mooy sungu su sell si nga xam ne day dugg ci àll bi fa lay nekk guddeeg bëccëg ngir jaamu seeni loxo sëñ bi man na te moo ëpp doole gën a féete xale gars yi listixaar nag da koo téye ci loxoom maanaam képp koo xam ni bëgg nga seetlu boo jokkoo ak moom daanaka lépp dana leer bu asamaan setee wala boog boo bëggee seet en direct sax loole da ci yëngu ma nga noonee Edouard Kabadinga ni ma leen ko doon waxee démb rek wax leen ni doogee jagadi mu jagadi loolee daanaka rek torse bu ndaw la waaye lépp dana dellu ci jàmm loolee moo am ndax moom gone gi fi mu toll nii dina bokk ci match bi nga xam ni équipe bi la di Real Madrid dina ko football fekk na booba seeni dëkkandoo di Barcelone tàmm tàbb na ñi jàpp ni. Euh, bu ñuy football match bu Ligue des Champions bi suba incha allahu dinañ ci am ndam ndax yaakaar dafa fort Balde moom ma nga ca biir ci ñu mën a ñu nu mën a joxe ak Ferran Torres mi nga xam ni euh, bokk na ci boobee équipe ak ki nga xam ni moo nekk Sao euh, Félix fi mu toll nii di yaakaare ki nga xam ni moo nekk équipe bi la di Barcelone gii gi nag gaa yi duñu ko bàyyi benn yoon kenn du ko génge ndax fi mu nii moo xew ca Barcelone liste baa nga kon ñu bàyyi leen ngeen savouré ko ñun ñu continuer information yi wérte wóor yi nga xam ni Habib Beye di gone ak sénégalais coach bi mu doon fële ca Red Star di coach ki nga xam ne mooy sunu màgget gi di Cheikh Ndoye waaye loolee téewul daanaka ma nga ca njobbaxtalu classement ba fukki match ak benn séngam yi mu football am na ci juróom benn victoire ñetti niil benn défaite loolee nag may ko mu jël meilleure attaque meilleure défense kon direction Ligue 2 bu fekkentee ne teggiwul tànkam moom abi Beye di coach bu Red Star Red Star dañ fay jógee dem ca Star ya ne ca Real Madrid ni leen ko waxee woon léegi gone yaa ngoogu àgg nañ fële ca Portugal def seenu tàggatu tey jii bu 19h jotee ci Canal Plus Sport 4 daananu daje ak euh, Balaga bi nga xam ne équipe bu Portugais la match ba nag du yoon bu benn yoon Santiago Bernabéu bi ngeen gis mu rafet lool car macha allah stade bi Real ren mosu cee perte benn match match yu baree bari yu mu ci joué da koo gagné ak i niil waaye fi mu toll nii jigéen dina leen ñu dikk ci programme bi nga xam ne nar naa jeqee ko tey jii. Ah, ci canal plus programme yooyu lañ ci gën mën a jàpp 16h45 Bayern Munich dana dem fële nga xam ni moo nekk Turquie daje fa ak Galatasaray 16h45 en même temps Red Bull Salzbourg ah, dana daje ak Inter de Milan Inter nag moo koy recevoir ci ab stade dam mu nar a nekk match boo xam ni gars yi bu am solo la Ramos nag ak i gaayam DFC Séville dana dalal équipe bi la nga xam ni mooy Arsenal Real Madrid ah, du koy dalal fële ca Portugal loolee nag di Fabien Grosso nga xam ni bokk na ci fi mu toll nii daanaka entraîneur bi nga xam ni moo njëkk a euh, nërmeelu nërmeelu gi ca Lyon lu mat ñeenti match sëngam ci ouverture championnat bi amu ci benn victoire lu dul ñetti défaite lan ko euh, faj tulli ko ba mu nooy nepp ak benn mat si ni loolee mus sa am ca club ba kon baye bu mu for ay dàllam ak i bagaasam jëlu basangam sax bu fekkee am na ko ànd